alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayaamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal al Cheikhul Xadim noo leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan Sëriñ Tuubaa Seex Mahmadu Muntaqa sunu borom yokk ko fan ak wér dëgëral ko ba mu àggale mboolem ay yéeneem ak i naalam ci liggéey Seexul Xaddim ci diine jeeg yoon weeg dëkk bi ak ci jàmm ñi di ko ñaanal njabootu Sëriñ Tuubaa yépp waaye di ko ñaanal sunu boppi nun bi Sëriñ Tuubaa yépp nu del teewaat ci seen télévision Lamp Fall ci seen émission bi ngeen miin ñu dina ko amalal bis set ci koor gi ci waxtu yi muy émission Fardul Hayni ñu di ci waxtaane lu aju ci sunu faratay jëmm yi lislaam faratal ci jëmm tamit lu mu war a xam jëmm ju nekk war koo xam ndax day yooyu kenn mënu la caa wut yow dong ma yàgg mën a jëfa sa bopp yooyu nag mu kalaf mu nekk war na leen a xàmmee ràññee leen xam la ko ca lislaam sant mu farlu ca jëfe ko la ko ci lislaam mu farlu ci jëm koo bàyyi tey nag ñu bëgg waxtaan tem boo xam ne eh, xëy na bari lu ñu koy waxtaan muy aljimaa wa aadabuha wala wa aadabuha aadabul jimaa mën nañu ko firee teg yi ne kawlal ñaari way dencante li ñu war a séq ca kawlal ba teggin yi islam jàngale ndax islam bàyyiwul dara lépp la jàngale lépp la jàngale lu mën a doon rek bu ñu jàngal thème mel noonu nag xay na da dañ jéggalu ndax xëy mën nañ caa dégg yoo xam ne day niru a xaw a dàqoonte ak teggin waaye lu ñu ci doon nañu ko jéggal xam ne jàngale ak leeral lañ jublu te lépp njàngale lislaam la ñu gis ne lislaam dafa indil nit ñi ci mboolem xeeti yiw yépp lu aj ci seen mbiri seen mbiri dundin ak seen mbirum diine ak seen mbirum dunduk àdduna ak seen mbirum faatu ndax li ko war a mooy dafay diinullahi azza wa jalla mooy dafay diine diine yàlla yàlla na gannaaw gannaaw dafa wàcce doomu aadama fi ci kaw suuf am lu mu ko dee mooy dénku kaw su dénku ay responsabilité kon faaw rek muy wax ak moom ci ci lépp jox leen diine ji tudd diine lislaam muy diine joo xam ne ko tax a jóg lépp a ko tax a jóg di walaabal ci jamono yépp di walaabal ci jëmb ji nag ci ndiit ak jinne jaxasoo nag ci diggante góor yu jigéen nekk mbiri dund yoo xam ne dafa yu am solo lool te su diine ji lislaam leeral ko leeral ko yoonal ko yoonal ci it ay teggiin ak i àtte yoo xam nit ki mën na caa xame ne kon ndeke du bànneexu kese kese kese ndax bànneex mu bàyyi may sax am nañ ko du it loo xam dañ cey jublu faj ajo rek faj sa aajo ji sa yaram soxla rek mu jeex waaye dafa daf ko lëkkaleeg ay mbir yooyu pas-pas yaa ju ci yéene yéene ju baax ak i tudd yàlla ak i teggin yoo xam ne laaj na ko warees ca ware warees sàmmonte ak moom te lépp shariha jàngale ko ci loo xam ne moo lay mën a yéege ci mustawa mën a niwo e, jaamu yàlla goo xam ne des na ca bindal nit ki tiyaaba jullit bi da ci am tiyaaba ci bu sale lay yéeneem mu ñëw yitam ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa loo xam ne dafay leeral loolu lépp ba kenn ci boroom xam-xam yu mag yi dafa waxoon ne eh, jaxasoo diggante góor ak jigéen dafa ne dafa bokk ci dafa nekk ci njubug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te njubug yonent saa sa mooy mooy ngeen jaamati mooy ngeen jaamati eh, njub mooy njub gi gën a mat joo xam ne dafay sàmm wér gi yaram tey da ci la ci la bànneex ak mbégte moom bakkan bi di mate sëkk sëkk sëkk teyit ci lay mën a amee ay jubluwaayam yi nga xam ne dañ koo tëral ngir yooya la ko tax a jóg la ko tax a jóg la tax la tax jaxaso boobu door jóg maa nekk loo daf ko ay ay jubluwaay da ca baax ndax jaxasoo dañ ko dañ ko tër ci cosaanul loo xam ne ñetti ñetti yëf man nga ñetti wos ñoo ko taw eh, nekk itam xee sa sa saxal mën a saxu aw xeet ci loo xam mooy mën a mooy mën a matal idda ji nga xam ne moo tax suñu borom suñu borom génne ko waa dafay sàmm dafay loo xam dafay ba ci njëkk mooy dafay sàmm mbémbur maa dafay sàmm askanu nit ki mooy jaxasoo dafay sàmm askanu nit ki la yàlla jol bori ngir mu war a am doom loolu daf koy sàmm tey itam ma nekk xeet wax dafay mën a sax ba keroog ki nga xam ne moom la yàlla sos ci biirum nit mu dem ba waxtu waxtoom jot suñ boom dogal ak génnam fii ci àdduna ci alam bi mooy jubluwaay bu njëkk bi ñaareel jubluwaay bi itam mooy génn ndox mi nga xam ne dafay nekk ci biir doomu te war a génn nga ne su génnul mën na ko jural ay feebar mën koy jural ay ay ay ay gàllankoor yu bare bari te loolu war a génn génn googu it mu war a nakki lu génn ngir nit ki maanaam wér-gu-yaram loolu bokk na ci maqaasid yi tax jaxasoo jigéen eh, ñu yoonal ko ñetteel mooy nit ki mën a faj aajoom ndax nit yàlla da ko bindee yaram moom am lu mu soxla ci wàllu bànneex am lu mu war a soxla itam ci loo xam ne du muy xéewoo la lu jëm ci yaramam loola it dañ koo tëral ngir ngir loola kon yii yi moom rek mooy faida mooy njariñ li nga xam ne àjjana weesuut njariñ loolu maanaam ci sëy ci àjjana weesuut loolu lu may ne rek àjjana moom am jurante amu fa àjjana amul am doom amul it luy sonal ndikki ki maanaam nekkul ndox muy ne ci sa biir moo xam ne dale bu bu génnul amal la jafe-jafe àjjana loolu amu fa àjjana moom lépp bànneex la amul amul amul amul benn benn jafe-jafe Euh, te euh, borom euh, wàllu médecine muy docteur yu mag yi dañoo gis na itam jaxasoo benn la ci sabab yi nga xam ne mooy wam mooy sàmm wéru wéru yaram ka ca toll ka toll ci war denc te dencut rek faawu day am ay jafe-jafe loolu mooy kon jaxasoo ba kon am na luy mën a jural nit ki ci wàllu wéru yaram moo tax yonente bi saa sam waxoon ne yaa ma'shara shabaab man istataa minkum baa'ata falyatazawwaj fa innahu axaddu lil basari wa axsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijaa Ablaye Moussa moo solo xadis boobu yéen bi saasan dafa wax ne yéen ndaw ñi képp ko ci mën a amuk can dénk naa ko na denc soxna ndax ci lay gën a mën a damme ab gisam ba du xool lu mu war lu mu war a xool ci lay gën a mën a ñoŋale itam boppam ci lay gën a mën a tiye boppam ba du ma yàlla mu ne koo ci xam ne amagoo kàttu mën a am soxna nag mooy amoo amoo loo loo amoo ak can mooy dénk naa ko nay faral di woor ndax koor dafay damm yéeg yéeg bi nit ki di yéeg ba di ko pousser ci wàllu bànneex boobu mooy ba koor daf ko daf ko daf ko daf koy néewal dool da koy wàññi Buxaari yi ak Muslim ku ci nekk indi na xadis boobu kon la muy teg mooy xadis bu wér la bokk na ci mbir yi am solo lool it nga xam ne sàmmonteeg moom day jaadu ca wàllu jaxasoo ba njëkk mooy ixlaasu niyati lillah mooy def ko li nga koy ko def nag ci jublu jëm yàlla mooy danga ci jublu jaamoo ko yàlla nga xam ne mbir mu nekk ndikk ki da ca war a sellal yéeneem jublu ca jëmm yàlla képp waaye bañ ca kese ak yéene ci jëf gi mu koy jëf def gi mu ko def mu yéene ca sàmm boppam ba du tàbbi ci lu xaraam waaye sàmm ki mu koy séqalit ba du xel leen xel leen bay tàbbi ci bay tàbbi ci lu xaraam ndax lu yàlla bindal nit ki faa bu mu koy soxla te soxla bu ko amul rek mën na ko yóbbu ci mooy yàlla te seytaan daf koy dooleel bakkan da koy dooleel kon def gi ko def da nga ciy sàmm sa bopp ba doo yàlla waaye sàmm ki ñu koy séqali ba moom it du ma yàlla ba ko ñaareel mooy eh, dafay tàbbaat ci biir ci biir ci biir yéene jooju mooy nga yéene wàll ci am maanaam baril baril xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir lislaam man ca yëkkati ko ndax bari bariwaayu aw xeet tedd nga la tedd nga la eh, victoire la ci buñ doon jàmmaarloo kéefër waaye itam eh, personnalité la daraja la mu xam ne def gam koy def su ca sell yéen dañ ko ci bindal ab yool jaxasoo bi dañ ko ci bindal ab yool bu dee soxnaam ak donte ma ngi cee am bànneex it ma ngi cee am mbégte mbégte moo xam mu teew la it teewul da am tiyaaba jëm lañ ci abi darrin radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu waxoon na ne wa fi bud'i ahadikum sadaqa képp ci yeen kuy jaxasoo soxnaam saa bu nekk wala toq mani bu nekk da dañ ko ci bindal tiyaabay sarxe ne ko ah yaa rasulallah a yati ahaduna shahwatahu wa yakunduhu fihi ajr nit ki nan la ca amee banneex ca la muy def ba noppi ñu bindal ko ca bindal ko ci ab yoon mu ne leen araytum law wadaaha fi lxaram akaana la wisr fa kadalik ita wadaaha fi lxalaali kaana lahu ajr mu ne xanaa gis leen bu fekkoon danga ko def fu xaraam mooy da ngaa njaalo def ko xam nga dañ la ci bindal tiyaaba kon kay boo ko defee fu fu fu dagan kon dañ la ci bindal boo ko defee fu xaraam dañ la ci bindal bàkkaar waaye moo tax na soo ko defee fu lawit fu dagan dañ la ci bindal tiyaaba kon lépp loo xam ne def nga day jur bàkkaar safaan ba day jur tiyaaba ni ko noonu la xadis boobu muslim moo ko solo kon loolu dafa bokk ci ngëneel yàlla yu màgg yi nga xam ne ci yoo xam ne da ko da ko da ko jagleel xeet wi jagleel ko xeet yépp waaye xeet yi nag mooy xeet yi gën a barkeel ci xeet xeet yi ah, yàlla na su ngi sant yàlla ci boole gi nu ci boole ci xayru ummat xayru ummati uxrijat linnaas na ko ci alxuraan mooy xeet wi gën ci xeet yi jaxasoo googu nag dem ci diggante góor yi jigéen kon wax naa teggin bu njëkk bi mooy sellal sa yéene ngi jëm yàlla képp ak yéene ca baril xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo ca yéene yéene jooju rek dañ la ci bindal teya ba ko ñaareel mooy war nañoo laal parfum ba nañoo jaxasoo loolu kon du jigéen ji rek moom la waaye góor gi da ko war ñu xeeñoo xet gu neex avant ñuy jaxasoo waroon na ci as saxiixayn yi xadiis soxna Aïcha radiyallahu anha mu wax ne kuntu utayibu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa yatuufa ala nisaihi suma yusbihu muhriman ينضج طيبا neen dama daan parfum li yonent bi sallallahu alayhi wa duñ ci mën a leeral ngir sàmmoon tegi teggin suñ digg ak moom ba ko ñaareel mooy fo fo ak moom avant jaxasoo da daa daa wax ne bu leen mel ni mbaam rek mbax mbaam moom day tëb tëb rek dal ca waaye nag war ngaa jiital war nañu jiital faw amaa ñu jaxasoo war nañu jiital faw faw moo xam ne mooy yéen yëkkati seen bànneex mooy gën a yokk seen bànneex ndax bu nee ba nga xam ne nag faw nañ ba nga xam ne kenn ku nekk yëg na boppam yëg na boppam ñu door a àgg ci nag mubashara faw moomu dafa war de dafa war baatu waajib nag mooy lu war su ko lislaam waxee mooy loo ne soo ko defal am ca bàkkaar fi ne ñàkk jiital fa moom bàkkaar la kon war nañoo fo njëkk avant ba kenn ku nekk yëg boppam ñu door a ñu door a àgg ci jaxasoo mu door àgg ci moom ba ko ñaareel mooy na wax baati zikkar yi nga xam war na ko mooy ñaan bala ñoo tàmbali jaxasoo eh, buxaari ak muslim solo nañ jële ci abdullah ibni abbas radiyallahu anhum mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lawanna ahadakum ida araada an yatiya ahlahu qaala bismillah allahuma jannibna sheytaan wa jannibi sheytaan ma razaqtana fa in in yaqdir baynahuma waladun fi dalika lam yadru lam yadruhu sheytaanun abadan yéen saa su dafa wax ne képp ci koy kuy bëgg jaxasoo soxnaam su fekkee wax na baat yi muy bismillah saytaan lépp looy def te tàmbali bismillah da koy bokk ak yow sooy lekk te neewoo bismillah mu bokk yow ñam wax sooy tëddi tëddi ci lal te neewoo mu tëdd dugg ci néeg te neewoo bismillah mu duggandoo ak yow soo jaxasoo sa soxna te neewoo bismillah mu bokk ak yow kon bismillah danga koy wax teg ca nag allahumma jannibna jannibna shaytaan wa jannibi shaytaana ma razaqtana yow sunu borom yàlla nag ma soril seytaane waaye yàlla na nga soril seytaane lépp loo loo may wërsëgal ci lii may def nii may may doomu doomu doomu ci wërsëgale rek nanga ko musal nanga ko soril seytaane loolu baat yooyu taamu nañ bokk na ci teggi ni nga wax ko bala ngaa jaxasoo ak sa soxna ñenteel bi walla walla ñetteel bi mooy melokaanu jaxasoo wi dagan melokaanu jaxasoo wi dagan daganul nga sëy sa soxna lu may ci barabu sëyukaay bi mooy fi ma am fi ma doom mooy ci pay mi sañoo jaxasoog moom fu dul foofa noo ko mën a jaare nag tamit foofa dagan na moo xam boo ko jaaree ci kanam wala nga jaari ko ci gannaaw mbaa foo ko mën a jaar rek te ci pay mi ngay sëy ak moom dagan na Buxaari yu Muslim solo nañ ndax li may wax lépp njàngalem lislaam la solon jële ci Jaabir ibnu Abdullahi mu ne kaanati yahuudu taquul ida ata rajulu imraatahu min duburiha fi qubuliha kaanal waladu axwal nee na yahud yi dañ daa wax ne nit buy bu dee sëy soxnaam jaare ko ci gannaawam waaye donte sax ci pay mi la sëy waaye ci gannaawam la ko jaare dafa jël position jaar ko ci gannaawam sëy moom ci pay mi su amee doom doom ji day jël maanaam bët yi day jël def naa xam nañ jël mooy bët yoo xam ne day man day lu xaw a beenu xam dale da da day day day day xool ne mel ni yoo la xooy wala mu lay xool mel ni feneen lay xool ñu ne yahudi dañuy wax loola waaye al suñu borom na waa wàcc ay weddi ko su ma dafa wàcc wàcc wàcc ay weddi waxi yahudi yooyu wax ne nisaaukum xarsun lakum faatu xarsakum anna shi'tum suñu borom daa wax ne seeni soxna seeni tool lañu sab tool nag num la neex nga cay bàyyi an naa chitum ni ko mën a firee ci waxinu léegi mooy position bu mën a doon rek sëy soxna nee na position bu mën a doon dagan ne li feeg yaa ngi sëy ak moom fi ñu war a sëyee li feeg yaa ngi sëy ak moom fi ñu war a sëyee position bu mën a doon dagan na euh, surtout baqara juróomeel bi walla juróom mooy ñeenteel bi ñeenteel bi tomb isaa xadat zawju arabaha fala yanziu xata taqdi azawjatu arabaha ñeenteel tegit mooy borom kër bu sëyee soxnaam ba moom mu àgg gaaraas moom daal bàyyi bàyyi woon ko gannaaw waaye na ko bàyyi moom it ba aajoom faju nee bu sa aajo fajoon nga daal ci génn bàyyi ko waaye na nga ko ca bàyyi soo soo aajo fajoon na ko ca bàyyi ba moom it aajoom faju bul rocc te aajoom fajuut ci leeral mu jéggal na ci waxin wi waaye lépp nag eh, yentu saa sa moom bu teggin foofu te moo ko jàngale waaye teggin moom eh, ci yentu saa sa la ndax moom moo moo moom la sun bam digal ñu roy ko ci teggin te lépp moo ko jàngale kon lu lu lu luñ ci wax ne ni ko wax ci njalbeen la lu ci nu xaw a ñàkk teggin nañ ma ko jégal te xam ne njàng jàngale lañ jublu ak leeral juróomeel bi tam mooy taxriimu wat il xaadidi xaaid dañoo xaraamal jaxasoo ak ku ne ci baax jigéen ji ne ci baax wala gësin te seetagut xaraam na nga jaxasoo mum ci biir baax ba xaraam na ba kër muy sangu mu set ba sangu mu door dagan ci yow at-Tirmidi yi solo ak Abu Dawud jël ci Abi Hurayra radiyallahu anhum wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ata aw fii fi duburiha aw kaahinan faxat kafara bi ma unzila ala muhammadin nee na e, képp ku sëyeeg soxnaam te fekk mu ne ci baax mbaa mu sëyeeg moom ci buntub gannaaw ba maanaam sëyeeg moom fi muy deme gannaaw kër wala mu dem ci ab ab seetkat di ko seetloo weddi dina li ñu wàcce ci man muy alxuraan weddi na li ñu wàcce ci Muhammad mooy wedd na alxuraan mooy kon ab yéefar la kon jaxasoo soxna kon bu fekkee ci ci gan buntu gannaaw su fekkee da ko niiruloo kii fa ndax loola borom xam-xam dañuy wax ne moog moog ngóor jigéen ñooyam donte soxla nga jaare moom ci beneen buntu ci ci fi muy demee gannaaw kon nga jaar nga sëyee fa moom moog ngóor jigéen ñooyam ka koy def dañ ko war a rey kon bu nekkee ci baax xaraam na nga sëy ak moom sañ ngaa bànneexu ci moom nag foog moom ci lépp loo lu leen mën a may baan danga soxla sa bopp mu foog yow ba ba ba keru nga am la nga bëgg dagan na waaye sëyeeg moom lañ la lañ la xaraamal mën ngaa bànneexu ci fi si aw yaram waaye li tàmbali ci jumbo xam jëm suuf lañ lay tere waaye feneen fu doon ci yaramam mën nga caa mën nga caa bànneexu ba ba ba ba ba ba ba yëg sa bopp suñu bam nee na waaye wa yasaluunaka anil maxiidi qul huwa adan fa'tasil fi sayxat dafa ne dafa ne dafa ne ñi ngi lay laajoo Muhammad ci ci baaxub jigéen maanaam mbërëg na ngaa wax ne sobe la qul huwa adan sobe la sobe la moom mooy mbërëg sobe la kon na ngeen beru jigéen ñi beru leen teg teg tekkiwul nga bañ a bokk te moom néeg baña bokk déedéet beru ga mooy bul bul jaxasoo moom rek man ngeen bokk lan man ngeen a bokk mbaa ji waaye bul jaxasoo moom fantasy loo kon tekkiwul ber ko comme na yahud yi daa def bu njëkk jax li jiit si sànni jigéen masaan beru masaan nekk ci baax daaw nango bokk mu lekk daaw na bokk mu ni dañ koy ber daal mel ni ku ñu seexlu mbaa mbaa ku ñu sànni kon fantasy loo tekkiwul beru ko waaye lam ci tekki rek mooy bul jaxasoo moom rek fantasy nisaa fil maxiidi xataa yatuxurna fa idaa tataxarna faatuhun min xaytu amarakumullah kon bu leen jaxasoo moom li feeg ñuy li feeg ñuy ñuy ñuy ñuy set wala taqrabuhunna jooju bu leen leen jege ji tekkiwul maanaam bu leen jege jege ni ci ci jëmm waaye la muy tekki ba tey sëy sëy boobu lay wax rek kon ne waxe bu nekk ci baax mën ngeen a bokk lal bokk mbàjj lépp man ngaa bànneexu ci moom waaye jëmmi sëy ak moom ci boppam moom la jublu ci moom la jublu ci euh, euh, ci ci iqtiraab boobu mooy mooy mooy jage gi wala taqrabuhunna hatta yatahurna bu leen leen jege ba keroog ñuy laab mooy ba keroog ñuy set ba sangu fa iza tatahharna saa bu ñu laabee nag faatuhun min min haythu amarakumullah na na ngeen sëy ak ñoom nag ca na leen ko yàlla digale ak fam leen ca digal juróom-ñaari mooy tahrimul wat'i fi dubur mooy bu juñu dafay root ci xadis boobu moo tax mu tuddaali ko waaye foofu mooy tombam mooy juróom-benneel tomb bi mooy jaxasaw moom ci fi muy demee gannaaw kër abu daawud solo na ci su ci ay sunam jëli ci abi hurayrata mu wax ne radiyallahu anhum yàlla na yàlla gërëm ñoom ñëpp mu ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla rëbb na képp kuy seey soxnaam ci dubur maanaam ci ci ci ci ci buntu gannaawam neen kooku ku yàlla rëbb la ku yàlla rëbb nag mooy ku nar tàbbi sawara yàlla ci yàlla musal ndax lool ba tey melokaanu wax ni ko wax léegi mooy ne sifa la min sifati yenn melo la ci melokaani eh, eh, ngóor jigéen ba ko juróom-ñetteel wala juróom-ñaareel boog juróom-ñaareel bi mooy tahrimu ifsha ma bayna zawjayn xaraam na ngay siiwal li dox ci seen diggante loolu na bari na ñu koy def surtout jigéen ñi ñoo ñoo gën a bari lu ñu koy def mooy bu ñu teggee ñoom naan di waxtaan lañu se la ñu seq seen borom kër kenn ko naan sama jëkk nangam sama jëkk nangam te loolu daa xaraam yenn saa sa mës naa génn fekk ay góor ak jigéen ñu toog di waxtaan mooy leen mbaa kenn ci yéen du netti la muy seq ak borom këram mbaa la muy seq ak soxnaam ñëpp na càll ne su as benn benn jigéen ne ko ne ko ne ko yaa Rasulallah ah jigéen ñi dañuy nett la seex seexa seen borom kër borom góor ñi dañu seex la ñu seexa seen borom kër seen seeni soxna mooy leen nag loolu bokk na ci li yées bu leen ko defati bu leen ko defati daan daan lool mi ngi mel ni nga jël jigéen dem ba ca digg mbedd mi nga tëdd fa ak moom nit ñi di romb ne nett la ngay seex sa borom kër ne noonu la mel lay nam ñaawee ak ni mu xawee ko neen di nett la ngay seex sa borom kër mbaa sa mbaa sa soxna neen di ko nettali noonu la mel mooy jël sa jaam dem ba ci digg mbedd ma fa nit ñi ca place publique nga defa sëy moom ngeen summi ko ba seet di fa sëy nam mel noonu di noonu la mel <coughs> kon lu ma ta moytu la <coughs> ngay jéglu kon eh, muslim soloon ak Abu Saïd Xudri yi mu wax ne yoon saa su ne woon na inna min charri nnaasi inda allahi mansilatan yawma alxiyamati arrajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilayhi suma suma yunshiru sirraha beneen xadis yoon saa su nee na ki yées ëllëg place maanaam ki yées ci nit ñi ëllëg place yawmal xiyaamati mooy góor gi nga xam ne dafay nett la muy seexe soxnaam ak dafay netti la mu këram kon loolu lu mat a bàyyi xel la kon su ko defee nag jeexut waaye incha allah suñu dellusiwaatee rek gën gën gën cee gën cee gën cee xuus incha allah leeral li des ci li des ci teggin yi nga xam ne moom la war a jàngale ci teggin ne kawlal ni ma ko waxee mooy la góor war a séq ak soxnaam ci kawlal wala la soxnaam war a séq ak këram ci kawlal su ko defee ne kon ñu ñëw ci ñaanu bis bi tey muy ñaan goo xam ne ku bëgg yàlla jubal ko ki nga xam ne jub da koo të te mu bëgg yàlla jubal ko bu ko dee saxoo jàng incha allah sunu bon dana ko xiirtal ci ak njub mais allahumma alhimni rushdi wa aidni min sharri lu gàtt la yow mën a takk allahumma alhimni rushdi wa aidni min sharri nafsi ku ko saxoo jàng incha allah sunu bon dana ko jubal xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne tajiduuna min charri naasa inda llaahi taala yowma alqiyaamati dal wajhayni allati yati haulaai bi wajhin wa haulaai bi wajhin nee na ki ci nit ñi fa yàlla ki yées ci nit ñi fa yàlla yowma alqiyaamati mooy borom ñaari xar kanam suy dem ci ñee xar kanam gi leen yóbbu su dee dem dañ ci xar xar kanam bi mooy ko xam ne melut nenn waaw mooy mooy naafeq rek naafeq fu mu dem rek ne ci yéen laa bokk nga xam ne naa ne ci murid ne man ab murid laa di di di daanu daanu ci tijaan ne ci yéen laa bokk nga kon daal ñaari bor xam dem rek ne ne ci yéen laa bokk kooku mooy kii yees ci nit ñi ëllëg bis penc kon ñu dégg leen daj suba ci waxtu yi seen télévision Lamp Fall eh, ñu su li gën ci noonu yàlla nga suñu defal dëppali ko ak lu ñu gënal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu